salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar jërë ngeen jëf yéen ñi taamu bàyyi xel seen mobile tv El Azhar Touba fépp fu ngeen mënti nekk ci àdduna bi ñu leen di nuyu leen sant leen gërëm ci bàyyi xel gi weeru safar di weeru sëriñ Touba waaye itam di weeru yoonu murit seen mobile TV El Azhar Touba tàmm ci ànd ak yéen ci liggéey bu am solo comme ni ñu ko daan defee ci at yu ñu génn atum ren ji itam fasuñ cee des ginnaaw benn yoon màggal ren gi itam noonu lañ ci fas yéene ànd ak yéen ci atum 2016 mii daan ci ànd ak yéen ci ay rubrique yu bees tàq lu ci mel ni en route vers le màggal ak découverte du màggal ak itam ni ñu ko baaxoo di àndak ak yéen le journal du màggal lépp loo xam ne itam ay jataay la yu ama am solo ci biir màggal gi daan ci ànd ak yéen en direct seen mobile TV Al Azhar Touba